benn Korint saar juróom ndax awma ndogal ci li may def ndax duma ndawul kirist ndax gisuma yeesu sunu boroom xanaa du yenn soqikoo ci liggéey bi ma boroom bi sant su ma ñenn ñi tegul ndaw moom laa ci yéen ndaxte yéenay firnde ji wone ne ndawul boroom bi dëgg la nii lay tontoo ñi may àtte